alquran alquran téere yàlla bi téere bi la yàlla wàcce si yonent bi alquran alquran téere yàlla bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu uh, jamono yi weesu dama publier benn daara boo xam ne yéen a ngi ciy gis sëriñ as ndaw di ci wax muy as ndaw ndukumaan ñu bëri di laajte fi mu nekk daara jaa ngi nii Kaffrine la daara ji nekk gis nga route nationale bi moo nekk nii xam ngeen daara ji fii mu nekk place commercial la ku ko defoon centre commercial defe naa man nga ci gañe xaalis bu bëri léegi nag dama jëloon benn vidéo bu ndaw rek nit ñi xëy na seen cofeel ci alquran tax ñu yéem ko lool waaye. vidéo boobu dama leen di wax ne leen bi ma ko jëlee ak bi ma ko publier daanaka mat na juróomi weer léegi nag ma bëgg dugg ci daara ji wan leen ngeen xam ne bëri na jaamu yàlla yoo xam ne seen bëgg-bëgg ci yàlla seen alal moo koy fésal daara jaa ngi nii maa ngi dugg ci entrée bi. gis ngeen couloir bi moo nekk nii couloir bi moo nekk nii defe naa am na ku ma doon jokkalool mu tudd Oustaz wilaan gis ngeen euh, couloiru daara ji moo nekk nii ba tax na euh, asalaamaaleykum Oustaz Wilane rek laa daan dégg de. waaw euh, tur yi dëgg la. alxaaji Wilane waaw kay alxaaji Wilane dama jokkaloo ak oustaz mu ne ma yow xanaa da nga gëj daara ja waaw ma ne ko vidéo bi nag bi ma ko jëlee ak bi ma ko publier daanaka mat na juróomi weer waaye man bi ma ñëwee fii ba gisaat daara ji nag am naa mbetteel yéegaguma nag waaye fii ma yem ci suuf rek doy na mbetteel. waaye bi ma duggee lële séen laa bëgg ñu njëkk ko commentaire dama séen ay ànd cuuraay waaw daara daara ji ñuy cuuraay nag maa ngi koy door a gis ndax aha ci nekk dañ la taalal sa la say lal fompal la ah. xam ne balaa ngaa ñëw fekk moom lépp day nekk kon moo waral ànd cuuraay yi ma gis ñu teg daara ji ñuy cuuraay nag euh, mbokk yi defe naa ah man maa ngi koy door a gis wax dëgg yàlla ngis ngeen ànd cuuraay yi léegi dama bëgg rek oustaz nga baal ma defal ma présentation suuf gi. composé euh, ci cinq chambre yoo xam ne benn bu nekk mu ngi def cinq lal. cinq chambre maanaam néegi xale yi cinq chambre la ci suuf bi. Mhm. bu def mu ngi nekk nekk ànd ak néeg boo xam ne daa ànd mhm. waaye am clim ah, xale yi fi ñu tëdd dafa dafa am clim. ah fii la xale yi di tëdd. waaw mais laajoon naa ko oustaz. laajoon naa ko sëñ As waaye dinaa la ko laajaat. ah kilim ba moo nekk ne la. mais kilim bële dafa rëy sax sëriñ bi nag. léegi lal yu yaatu yi ci la xale yi di tëdd. lële mooy salle de bi. waaw léegi ñu dem ah sëriñ bi lii nag yéeme na léegi lii benn couloir la nii rek dara du am dara. dafa vide nii. waa léegi gisoon naa euh, keroog sëñ As bi ñuy présenté mu wanoon ñu. Euh, ci suuf nii mooy euh, fi nga xam ne fi ngeen dëkk yéen. waaw léegi nañ ñam xool fi nga xam ne fi la Oustaz si dëkk. saal bi maanaam fii mooy seen sa saal wi ngeen di dalal seeni gan. ustaas amee seen pare ustaas yi ñëw. wala seen i kii xam ne ñoom lañ ziar ñoom fii leen dalal. fii lañ leen di dalal am seen kër yëpp. léegi ñoom tamit seen néeg yi. néeg nekk ñëw tam. am boo xam ne sa armoire boo xam i néeg maanaam néeg bu nekk am na firigo am na armoire am na armoire. am na kilim am na ventilo am na ventilo kon néeg yi la ustaas daal kon euh, macha allah <laughs> waaw léegi ba tey ñu delluwaat ci couloir bi léegi fii ma jàkkaar loolu nii fii ma jàkkaar loolu nii mooy fan fii moom sàll boo xam ne dañ ah. ko farawaaral waajur yi nga xam ne ñoo fi indi seen doom te bëgg leen nemmeeku si fu ñëw ñoom fii lañ lay dalal ñoom spécial fii mooy waaye waaye li ma jaaxal waajur yi duñ fay waaw di ànd loolu yow ñun nañ leen foo xam seet si sa doom ah, sëñ bi saal bi yàññi na de léegi saal bi bu waajur bu fi waajur yi nekkul dañ koy tëj nii ñun nag bu ñu amee léeg-léeg saa si amee seen réunion yi fii la ñuy toog. daje di fi waxtaanee di loo xam ne mooy accord ah, euh, sëñ As yàlla na guddal fanam. Hmm? waaw ba tey ñu delluwaat ci couloir bi. léegi fii mooy néegi néegi xale yi mooy fii néeg bu nekk comme bi ma njëkk dugg ni mel rek noonu la mel. noonu la yëpp noonu la na cinq lal am na euh, clim am na sa ventilo am na salle léegi soxna si ma fekk nii mu taxaw moom mooy defar andi. kii moom mooy Adja Fandaw moom itam moom lañ jël carrément spécial lépp cet cetam moo koy saytu ak xañul luy neex ak yëpp gis nga ko moo teg ay cuuraayam ni te lii sax su lay am. <laughs> waaw soxna si dama laa fekk yaa ngi defar andi yi di def xale yi pour cuuraay waaw man nag daara ji ñu def cuuraay. gisuma ko màkk sax euh, wax dëgg yàlla jàppoon naa ne sëñ ab xiram yegg na fu ne waaye nag di defar ay cuuraay ci daara nag moom ah maa ngi koy door a gis kon yow yaa yor loolu. maa yor wàllu ah. ànd ah. yi nii. Ah. nekk fi nekk nii. bu ñu ay ànd jàngukaay xale yi di jàngee aussi dañ koy dugal ay ànd. fi xale yi di jàngee alxuraan dañ koy cuuraay. fi ñuy tëdd dañ koy cuuraay. ak jumaa ji. tur wi nga ne. soxna Faat njaay Ndaw madame njaay ah yow fi nga fi nga féetewoo am na solo de muy cuuraay ah macha allah kon ñu dem fii fii ci suuf nii lii fii fan la. ah dafa am waañ spécial. fii mooy wàññi fi la ñu toggalee xale yi. aha ñoom ñoom itam seen liggéey mooy. Mhm. fexe ba lekk bi di pare heure heure bi ñu mhm. am benn heure maanaam bu heure ndekki jotee ñu teg ndekki. jotee ñu ndekki ba heure añ jotee ñu añ ba heure jotee ñu moo tax dañu ko mujj def ko ñaari bi su toggee deux jours dem beneen groupe bi toog deux jours ñëpp dañ leen a yoreel salaire. ñëpp dañu yoreel ay salaire. Ah. waa léegi fii. bunt fii bunt bii nii. waaw moom mooy magasin bi nga xam ne. fii la yëf yi ah, dund bi nekk. ah d' accord ah sëñ bi dund bi moom. léegi lii la euh, ceeb la. diw. waaw ak meew. Ah, saako meew yi tamit ngir daara ji la. ceeb bi nga façon ceeb bi nga xam ne moom la ñuy dundee vraiment ceeb mucc ci ayib la defe naa ne. sa waay man téema doonaan xale ñëw delluwaat ci daara ji. ay équipement football la am nañ ci deux cent cinquante moyens yoo xam ne xale yi cakk yi dañ koy sol di dem di football. lii ay équipement football la. ah xale wutal nañ leen beneen terrain boo xam ni. Mhm. ñu ngi koy defar pareegul. Mhm. nga xam ni àllarba axima ñoom ci lañ dem di tàggat seen yaram. terrain spécial boo xam ne pour daara ji rek la waaye àllarba alxames rek lañ fay def lii ay tàndarma la. lii ngay gis nii tàndarma la lii ngay gis mooy siwo cuuraay ak kii. li mooy siwo cuuraay ak am réserve gaz <laughs> mais sëriñ bi maa ngi ree nag waaye. Ah. neexul ba neexul oustaz Mara Fall dinaa ko sant gërëm ko ndax man la ma jotoon a gis rek laa yéem waaye bi ma waatee téléphone daf ne ma ñaan naa la sëriñ bi boo demee Saalum dem fa waaye sama ñëw bii rëccuwuma ko ndax lii nag wax dëgg yàlla ah, gis naa lu nekk nag waaye maa ngi doon a gis lu mel nii sàmbur bu nekk am na ñaari fóotkat sàmbur bu ne am na ñaari fóotkat yoo xam ne ñoom ñooy ñëw jël yëre xale yi di ko fóot ba mu set paase ñëw delloo si leen ko ñoom loolu rek mooy seen liggéey ñoom tam. allahu akbar. ñu ngi ci waañ wi ba léegi. soxna yaa ngi togg ah. léegi fii sëñ As wala maa ngi naan sëñ As sax eh, alaaji waaw alaaji kon As wi laan ndax alaaji mooy As fii mooy lan mooy ah yi.

waaw léegi am na beneen bâtiment bu nekk nii léegi bâtiment bii lu fi nekk. waaw fii mhm. euh, xam nga ku ne jàngukaay rek wax jaamukaay yàlla. Mhm. fii moom da pour daara ji. juma pour daara ji spécial pour daara ji. waaye étage la ko def. étage la ko def nga xam ne xale yi boo biñ jàngee. Mhm. waxtu julli jotee nii lépp waxtu julli jotee lépp luñ doon def dañ koy bàyyi dem julli ji. allah amu koy togg amu dem ji doon dellusiwaat ci liggéey bi. Hmm? fi mooy juma ji. bisimila fii mooy jumaa ji waaye jumaa ji moom yaatu na fële ci ginnaaw nag ci ginnaaw lan la ah ci ginnaaw jàkka ji génn nañ ci jàkka ji génn nañ ci jàkka ji waaye dama gis dafa mel ni da ngeen a nekk fii sànc ñu ngi bàyyi xel jigéen ñi xam nga ku ne daara góor kese faaw nga. jigéen ah fi ñu toll nii góor rek ngeen jël. góor rek jël. waaye eh, sëñ As dafa bëgg a tabaxaat daara pour jigéen. voilà fii lañ ko réservé pour defar uniquement pour jigéen ñi nga xam ne ñoom itam dañ ciy ñëw jàng ba dem te kenn du jot ak dara boo leen gis nañ ci seen. maanaam jigéen ñi dañ leen di dañ leen di tabaxal appartement spécial. spécial jàngalekat ba jigéen lay nekk ñu ci porté ñëpp ñoom jigéen lay jigéen lay nekk. moom la ñuy tabax nii. xam nga sori nañ ñi daanaka finition moo ciy bëgg a xool dafa mel ni kon fii lañuy ñuy bëgg a tabax ngir jigéen ñi ci kaw ak ci suuf léegi gaa gaa yaa ngi nekk ci sànc bi gaa ngi bi am na ay salle de mbaar mi nga gis ci la xale yi jàngee mhm. am na ci kaw foo xam ne appartement la pour yaa Seyda bi leen di jàngal moom itam mhm. wutal nañ boo xam ne waaye dafa am la mu wax léegi <laughs> da nga wax ne ma ah, fi ngeen dëkk yéen léegi après dañ ko bëgg a def waaw fajukaay xale yi fajukaay xale yi fi nga gis noonu xale yi fi ñu néegi ustaas yi njëkk yi waaw dañ ko bëgg a def benn clinique léegi jëndal na leen beneen kër boo xam ne spécial mi ngi koy defal pare bu nga xam ne ustaas bu ne dana mën a recevoir soxnaam te du am benn problème ci ci ci ci liggéey bi maanaam su ma déggee li nga wax mooy yéen fi ngeen nekk da ngeen faa dëkkandi dañ faa dëkkandi as as ndaw jënd na jënd na beneen kër boo xam ne. spécial pour ustaas la. nga xam ne pour ustaas yi dëkk rek ñoom dañuy ñëw jàng wàcc dem ñibbi seen kër. man man seen njaboot ak seen lépp. nga ah. xam ne dañuy kenn ku nekk mën nga ànd ak sa soxna ñëw fi ngay xëy di wàcc di di ko fekk. Ah, comme que yaay directeur bi nga sóoraale ma ci rek. <laughs> <laughs> nga sóoraale ma ci. <laughs> léegi euh, def na nag mel na ni étage la. étage la. léegi defe naa war nañoo mën a yéeg ci kaw. jumaa ji moo nekk nii. maanaam kaw gi jumaa la suuf gi jumaa la ni suuf gi mel noonu la kaw gi mel waa léegi gis naa lële ma seen dafa mel ni bur bu courant coupé la mais daara nag war naa mën a muñ nag <laughs> courant bu coupé nag ah, sëriñ xam nga courant bu coupé bi sax du sax si dëkkuwaay bi wala nanga waaye bu la fekkee ci jàng Euh, boo courant coupé rek. sëñ bi sëñ bi daara nag dëgg dëgg dëgg dëgg nag euh, war naa mën a mañ nag courant bu coupé ku daan taal ay matt. waaw mën ngaa mën a muñ courant bu coupé. léegi lii ñetti groupe la yoo xam ne. pour bu courant coupé rek la. courant coupé rek secteur bi am na groupe boo xam ne moo leen taal gis ni mooy jël mbaar mi suuf bi bee mooy jël jànkuwaay yi ci kaw. bii moo jël jumaa ji nga xam ne. maanaam bu mag bi moo jël jumaa ji. bi ci digg bi. bi ci digg bi moo jël suuf gi. moo jël suuf gi ak saal bi. Ah, bii moo jël kaw gi ñuy jàng moo jël kaw gi fi xale yi di jàngee. ah sëriñ bi ah daara ji ji ji am group nag ba tey boobu dafa doolee ko ci ci yi may doo yi ma yi ma gis. gis naa ànd cuuraay. waaw gis naa daara joo xam ne groupe yu mel ni te daar dama ciy dolli amul fay. waaw man loolu maanaam. loolu moo ma yéem ci liggéey bi. biñ njëkk ubbi la ne leen yéen moom dara warul leen lu toog jàng man mi nga xam ne nag maa leen fi indi man di leen indi. moom mooy yalwaani di moom bëri na ku naan ma aas numéro ma ne leen sëñ aas ku koy oo di ko sonal du ma ko jox numéro ndax ku ko mënta oo ne ko maa la jàppalee lii bàyyi ko nag mu liggéeyal la lii diine xale yi mel na ni gis naa leen ñëw nañ dafa mel ni euh, ca ca terrain ba bay door ñëw. maanaam dañoo fubali woon. dañoo fubali woon chaque àllarba chaque ne ñoom jànguñ ko. dañuy dem ci terrain bi yëngal seen yaram ñëw jëndal leen beneen terrain boo xam ne spécial la ñu ngi koy defar pare ñu koy defar synthétique xale yi. waaw as na leen terrain boo xam ne. pour football rek la. terrain privé lay doon. mu am synthétique. lépp lay am vraiment jëndal nañ seen i ballon yu doy bu nekk bu tàgg dañuy nga xam ne équipe ak équipe lay doon ah, waaye àllarba ak alxames rek la buñ jàngul kon xale yi ñoo nekk nii gis nga fekkuñu leen fi ñu ngi demoon ah, ca ah, terrain ba fubali woon bi ki